discours à la nation bu njëkk bu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñetti fan ci weeru avril 2024 dafay wane gis-gisam ak bëgg-bëgg jëfinu njiitum réew mi discours boo xam ne la ca ëpp politique la bu ñu sukkandikoo ci style bi ni ñu ko doxalee waaye tamit kàddu yi askan bi booloo doon benn am jàmm am karonge sàmm li ko fi ñi ko jiitu bàyyil gën a jëmal démocratie bu Sénégal jaarale ko ci suñuy valeur ak ni ko panafricanisme bi bëggee doon na ay royukaayu moom mi nga xam ne moom la ñu teg ci bopp réew mi tëggaat gi mu bëgg a tëggaat réew mi dina ko amal ci doxalin ak gis-gisu rupture ni ñu yoree wàllu démocratie mbirum public yi ak privé yi waaye tamit anam yi ñuy yoree pouvoir bi administration bi service public bi ak partenariat bi réewu Sénégal dina soppi xar kanam bu ñu amalee yooyu la coppite jaarale ko ci waxtaan ak it tënku ci bëgg-bëggu askan wi nga xamante ni moom rek mooy dogal message yu ñetti fan ci weeru avril bii li muy fësal rek mooy bëgg-bëggu ut saafara ci ay mbir yu am solo lu ci mel ni gouvernance rawatina ci ndaw yi jëmale ko ci wàllu njàng meeg njàngale mi wàllu tàggatu ngir ñu am métier waaye tamit fexe ba ndaw yooyu mën a bokkaat ci biir famille yi ci askan wi am lu ñu moomal seen bopp ak it dëggal seen bopp ci wàllu cosaan waaye lan la ñu mën a wax ci xeex gi ñu bëgg a xeex wàllu ger wàllu yorin bu seetlu indi ay coppite ci wàllu mbay mi ni ñuy yoree ressources naturelles yi wàllu pétrole bi fexe it Sénégal mën a demal boppam ci ñam yi muy jëfandikoo wala sax ci indépendance politique bi ñeel partenaires yi njiitum réew mi basiru Diomaye Faye moom nag jël na élan fësal na bëgg-bëggam ak xalaatam ak it gis-gisam ci ëllëgu réew mi moo tax base bi nga xam ne moo ñeel wàllu politique ak gis-gisam dal dina koy fësal ci ngoonub ñetti fan ci weeru avril atum 2024 bii moo tax dafa laaj ci juróomi at yi mu dal di gën a jëmmal wàllu liggéey wàllu xarañte wàllu pas-pas ngir mën a nag dox wutali bonne gouvernance rupture bu ñu mën a teg gët waaye tamit gën a ñoŋal nekkinu askan wi ndax nag sénégalais yi xam nañ bu baax a baax ne jot na ñu amal coppite ci anam bi ñuy yoree réew mi te loolee askanu Sénégal loolee rek lañuy xaar ci njiitum réew mi nga xamante ne dana ko tabb premier tour ginnaaw bi mu amee lu ëpp ci téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent